Moustapha Gueye 2 ma lay nuyuwaat bu baax di la siyaar euh, sa rakk Gris Bordeaux jiite association boo xamante ni moo ëmb képp koo xamante ni mbër nga te ne ci yëf yi euh, tey mu woote euh, sa ñëw lan la fii. Hmm. waaw association bi association de lutte en activité la ñun ñëpp ñu ngi si nekk ci groupe benn waaye nekk ci groupe bi ñu ngi ci groupe bi lépp ñu xew la dañuy teew comme tey mais dafa am lu ñu dégg ñun tam ñu dégg ko. ñu dégg ko bañ ko déggee ku si nekk sa dënn dafa tàng ndax musiciens yi fan yi passé mos nañ am luñ mos ñun mosuñu ñu ñoo fi rek ma ñoom bañ mosaatee suñ sàppale leen deux milliards cinq cent ñun tamit foog ñu wax dañ leen sàppale waaw musiciens yi nag gën ñoo nekk ay nit ñu wax dañuy yuuxu mais ñun dañuy xeex dañuy reyante dañuy bëri ci làmb ji ba ku nekk doo am bëñ ñuy direct man trois fois champion d'Afrique laa jël ba tey mënu maa gis président kon Macky Sall na moo xam ne ñun ay doomam lañ ci famille la bokk ndax njiit du sàkk boppam yàllaay sàkk njiit parce que la moom la fi yàlla teg ñu ngi koy ñaan mu defal ñu teraanga yi ñu bëgg ñun kon nu mu ko defalee doomu aadama yi nekk si ndéeg mi mais mel ni làmb léegi bëggatuñ mu dox mu dox suñu cosaan xanaa bëggatuñ mu mu mu mu fonctionné. Hmm? Moussa nga nii guddoon dong dok na guddoon bu ko dégg gën a kaka la ah séeréer bu doon tey li li ngeen doon benn 5 millions wala 10 millions tegee ne nañu wax dëgg rek quoi dañuy waxtaan. kon huis clos boo ko tëggee làmb promoteur bàyyi faatu rek mais mbër moom mbër moom da ci yoon du si nekk tax mbër bi gën a am sax huis ndax du supporter dem kenn dem si six kilo ceeb ngay sóor wala vingt kilo ceeb lépp lekk ku ne xam foo jëm amul ànd ak supporter amul ànd dara yaa ngi dem kon président Macky Sall nañu dimbali maanaam Faye Sall bu ñu déggee nañu dimbali ñun ci ministre des bu ma dégg dimbali ñu déggee. donc Tafa Gueye ngi nii sonn na ci làmb trois fois champion d'Afrique battu Lama Lama Atanas Assane Bamba Lali Ballo Arona ab Burkina Faso. ah donc xam na li may wax champion la kon nañu may bourse Converses man laa koy ñaan ministre des sports bourse Converses maanaam entraîné ji nekk ci yeneen ndax làmb ci kat bu yàggee kenn bëriwul 10 mois kër gi mën naa saxaar te bu yéexee tàkk. daan Malang Ndiaye jël bu rëy. daan Malang Ndiaye jël boo xamante ni senegal ba tey moom la ñuy coow te noppeeguñu. te sa colonel bi Tamba moo may rey. waaw Tamba Tambacounda. waaw waaw noonu man damay laa daan bu wóor ku ne xam na mbar la kii xam na ko lamb séeréer kenn mënu ko daal tëral kon li ñuy wax Sénégal partout dans le monde nañu dimbali xam nañ ñun dañu manqué mooyoon jamono juñ toll nii xale yi war nañ jàngi xale yi dañu jàngi xale yi war nañoo lekk goûter xale yi war nga leen jëli école instant bi rek ay un an la ñu laaj. nañu jàppale école bu tëjee lépp ji oto yi daw jàppale nañu jàppale feebar bi nag wax dëgg yàlla sunu borom andi rek war a jeexal da ko jeexal mais nañ ñu téye jox ñu ñu téye ba président xam na la xew xam na la kër gaa ngi saxar nañu dimbali. billaay sama prison yi ñëpp a dee. ñu problème bële. nga barke suñu bopp mbàkk yi ginaar yi ca ca lay cox laay jël ñu duñ ko lekk aliment lañ xam aliment nga su ma jëndee six sac jox leen ko ba mu jeex pour nga génnewaat waat il faut nga am donc bras long ba mu bras long ganaar yëpp faatu euh, euh, euh, nañu dimbali loolu daal lañ ñaan rek dimbali ñu jàppale ñu daal si suñu luñ bëgg ku ñu téye man de su ma téye su ma téye daal ci ma xam ne ñëpp téye naa waaw yal na yàlla defal jàmm voilà.